asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di lu bari di siyaar mboolem kilifa yi nga xam ne si ne ñu ngi ci biir daayirul muxaddamatul xidma diaspora yëpp eh, di leen fàttali nekk tey jii ci talaata ji dëppoog ñaar fukki fan eh, ci weeru mille 2020 ñu ngi fii ci jumaay Tuuba eh, teew fi ak kilifa yi nga xam ne si ñoo jugee Côte d'Ivoire ñëw indi si li nga xam ne si mooy mooy bu liggéey ci daayirul muxaddamatul xidma euh, diaspora euh, ci teewaayu sëriñ Aliou Thiam jëwrin euh, sëriñ ma Gumba Thiam bi nga xam ne si ni moo représenté mbooleem taalibe yi nga xam ne si ni ñu ngi ci Touba Côte d'Ivoire yëpp waaye tam ci teewaayu sëriñ Baar Fall xidmatul xaddim bu Touba Adjamé ak sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall moom itam Touba Adjamé ak sëriñ Sadikh Kane waaye itam ci teewaayu sëriñ daam jaw ñu dikk fekk si fi kilifa yi e, ci njiital Serigne Abdoulaat Bousso Thierno Serigne Abdoulaat Bousso maam Thierno e, waaye tam fekk si fi Serigne Abdoulaat Bousso e, maam Asta ak Serigne Jili Bousso ak mboole mbokki taalibe yi nga xam ne si ne ñoom la Serigne Afia Bousso teg liggéey bi ci seen loxo ñuy taxaw li nga xam ne si mooy daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal comme ni nga xam ne noonu lañ leen ko waxee woon rek ànd nañ ak mbokki fédération xidmatul xadim bu Touba Côte d'Ivoire yëpp ñëw jéblu si lii nga xam ne si mooy suñu addiya mu toll ci huit cent cinq mille francs euh, téeméer junni ak juróom-ñaar ak ñett euh, ñu jébal ko kii nga xam ne mooy Serigne Afia Boussa al imam ngir mu defal ñu ko ci li nga xam ne si ni mooy liggéey jumaa ji euh, ci biir loolu it ñi ngi sant mboole mbokki taalibe yi nga xam ne si ni ñi ngi ci Touba Côte d'Ivoire yëpp ñi nga xam ne seeni def nañ ci seenu ñaq ak ñi nga xam ne seeni amoon nañ yéene def ko ci ñi ngi leen di sant e, te di leen gërëm e, di leen jaajëfal waaye itam di jaajëfal bu baax mboolem mbokk yi nga xam ne seeni ñi ngi ci biir e, Touba Yamoussoukro te ñoom itam ñu amoon carte de membre ci suñu loxo nga xam ne saa bu leen soññee ci wàllu liggéey bi ñoom itam ñu def ci ba def ci loo xam ne seeni lu kawe suñ njort la ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di jaajëfal bu baax Serigne Balla Diop jëwrin waaye itam di sant bu baax ki nga xam ne si ni mooy Serigne Assane Diop xidmatul euh, xadim bi nga xam ne si ni moom moo jiite diaspora bi yëpp ànd ak ñun ci jataay bi xam naa ci kanam tuuti moom itam danañ ko mën a déglu euh, waaye itam di jaajëfal bu baax euh, Serigne Balla Diop jëwriñ Touba Yamou Sukro ak sunu yaay Adja Soxna Dumbe Seck jëwriñ Soxna jaar Touba Yamou Sukro ak Adja soxna Ami Ñing ñoom ñëpp ñu ay jëwriñ yoo xam ne si ni amal taxawaay bu mat ci lii nga xam ne si ni mooy daayirul Muxaddamatul Xidma ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di la xam ne addi ji xam ne si moom lañu leen doon laaj ngir ñu indi ko andi nañ ko fii teg ko ci loxol kilifa yi bu ko defee ñu jox kàddu gi ki nga xam ne si ne mooy sëriñ Abdoulaye Bousso walla ñu jox kàddu gi ki nga xam ne si ne mooy Serigne Aliou Thiam moom itam mu jógee tuuba Abidjan ko defee mu sànni ci ay kàddu billahi min asheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp képp ku ñu seetaan ah, di wax alhamdulilahi rabil alamin bu ñu yàlla dimbalee ban teew fi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne képp kuy jullit rek ah, war nga ko song muy liggéey liggéeyu Muxaddamatul Xidma muy liggéey bu am solo comme ni ko sëñ Abdoulaat bu soo daan waxee bi mu ñëwee Côte d'Ivoire liggéey la boo xamante nii képp ku jullit rawatina nga di taalib sëñ Touba da nga ci war a dugal sa loxo boobu nag tey moo ñu indi fii ñun waa Côte d'Ivoire ci ndigalu sëñ ma Gumba Thiam mi jëwri ni sëriñ Touba ba nekk Côte d'Ivoire ñu ànd ak sëñ tuuba Lo ak sëñ Sadex Kan sëñ ba jëwriñ sëñ Baara Fall fekk fi suñ jëwriñ sëñ Moussa Fall ak sëñ Dame Diaw ñu ànd andi liggéey bi nga xamante ni nii moom lañ doon liggéey ci at mii ah, loolu liggéey boobu nag dañ biñ fi ñëwee dañ fee fekk ay kilifa muy sëñ Abdoulaat Boussa ak sëñ Jiili ak sëñ Abdoulaat bu ne sëñ Abdoulaat Boussa mi ñu dalal ñu ci ndigalu sëñ Afe mu ñu am ay kàddu yu mbégte yu kawe kawe ndaxte wax dëgg yàlla ñun ay ndongo yu xeebu lañu tey liggéey suñ Tuubaa rek moo ñu moo ñor daanak buñ ca paree sax jëru ñu ñu wane waaye nag ñu defar ñu honneur bi yëpp di leen ciy sant leen gërëm di leen ñaanal yàlla seen taxawaay gën a yàgg leen yaakaar ci liggéey bi yàlla nañ ci day lu kawe seen joot ci barke borom Tuubaa waaw liggéey bi nag nekk na liggéey boo xamante ni wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ko seqal ca réewum Côte d'Ivoire bu ma waxee ci jëwriñu xidmatul xaddim yi nekk Côte d'Ivoire li ko dalee ci Yopougon kër sëñ Moussa sëñ Moustapha Dieng ci Yopougon sëñ euh, maam Thierno Ndong ca Koumassi sëñ euh, Ibrahima ñas ca Marcory sëriñ euh, Fallou Mbaye ca Abobo sëñ Ablaye Ndiaye ca ajame ba ci sëñ Abdou Majib ca Bassam wax dëgg yàlla ak yun suñ jëriñ yi nekk Boaké sëñ waaw jëriñ nekk ci biir intérieur rek maanaam boo bëggee lim doo matal <laughs> ndax doo xam mën na maîtriser ñu ñëpp waaye képp koo xam ne jëriñ Xidmatul Xadim nga nekk biir Côte d'Ivoire rek ñu ngi lay jaajëfal ci liggéey bi comme ni ko sëñ euh, Touba waxee léegi nii rek toll na ci huit cent soixante cinq mille loolu nag mën naa ne du lim bu takku dañuy ñaan mbokki taalibe yëpp rek képp ku seetaan euh, vidéo bi ñu xam ne liggéey bi nan mel ne mu ngi door a tàmbali ca réew ma kenn ku nekk pastefu ci ba bu déwénee bu ni ñu andi huit millions wala dix millions ndax fii lu fi waaye def kat doyut ndax te lépp li xamante ni war na ñu koy def. mu jëm ci jumaa ji mu jëm ci koor gi mu jëm ci màggal gi xaalis bu bare koy def te it demuñ ci kenn di ko di ko yalwaan taalibe Sëriñ Tuubaa yi rek ñoo ko yor kon nag ñun waa Côte d'Ivoire ruñ cee deltu ginnaaw wañ cee war gën a fës def addi yoo xam ne ñu ko tegee fii rek ñëpp leen xam ne kenn ñu góorgóorlu nañ ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant ñu fekk di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci liggéey bi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo leen di nuyu bu baax di leen ziare ah, tey ñu ngi fii ci biir jumaay Touba ànd ak waa MK TV ah, ñi nga xam ne ñooy saytu lépp luy wàllu audiovisuel fii ci biir jumaay Touba ah, di sant suñu jëwriñ yi ñu feggoon mu sëriñ Abdou Lahat ak sëriñ Jili mi ngi xam ne moom la àndaloon ñëw Côte d'Ivoire doon fa dox sa liggéey Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne bi ñëpp xam. seen am solo ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw fii ci jumaay Tuubaa ci màggal ak saxul Ramadan muy liggéey boo xam ne nag eh, ñëwoon nañ Côte d'Ivoire doon ko leeral mbokk taalibe yi ndax mel na ñu nekkoon biir Côte d'Ivoire amoon nañu umpale boobu liggéey yàlla dogal mi ñu fa ñëwee suñuy jëwriñ ñi nga xam ne ñoo njaboote liggéey Sëriñ Tuubaa bi tàmbalee ko ci sëñ Gumba Caam ak mboolem jëwriñ ñi nekk ci l'intérieur bi ak biir Abidjan ah, mën nañ caa lim ñenn ci biir Abidjan ku mel ne sëriñ Modou Thiam Touba Abobo ak euh, sëriñ daam Gueye tuuba Divo ak sëriñ Mame Balla Diop Touba Yamoussoukro Baye la su limee ñooñu rek day doy ñu lim waa Côte d'Ivoire ñëpp euh, muy liggéey Moukhaddamatoul Khidma boo xam ne euh, ban fa ñëwee soññu nañ ci taalibe bi yëpp ci am solo gi nga xam ne liggéey bi am na ko solo. kon tey jii bu ñëwee fii ah, indi suñu àddee comme ni ko sëñ Touba loo waxee sànq ak suñu jëriñ sëñ Aliou Thiam ak sëñ Sadeex indi fa àddee yoo xam ne wax dëgg yàlla ni ko suñu jëriñ waxee rek ñu ngi soññaan mbokk taalib yëpp ah, ndax xëy na liggéey bi ah, fan koy séentu ci Côte d'Ivoire àggagu fa waaye nag dafa mel ne dañuy door a tàmbali kon li ñu tey mu toll ci li bi sëriñ Touba wax. muy li bu ma des maam bu bu xaw bu a buñ xaw a xeeb ah, bu ñu doon xeeb àddiya ah, kon ah, jëwriñ ñi nga xam ne lim nañ leen liggéey bi di liggéey muxaddimaatul xidma ci turu sëñ Magumba ñu ngi ciy soññ mbooleem jëwriñ bu nekk biir Côte d'Ivoire ren jébal nañ àddiya ji jëwriñ bari barkeel nañ ci am na ñu ko jot a yëg ba tax seen àddiya agsiwul waaye nag ñu waajal ko jëm ci weeru koor wi ndax muxaddimaatul xidma seen liggéey ñaari période la ci année bi muy période màggalu Tuuba buñ ci jógee waajal koor gi kon dafa mel ne wuute na ak daayira Sëñ Tuuba yi nga xam ne dañ koy indi chaque année kon bii da ngay xaaj at ñaari ñaari xaaj juróom benn weer nga liggéeyal ci màggalu Tuuba juróom benn weer ci nga liggéey ko koor gi kon ñu xam ne kon liggéey baa ngi ci kanam soreetut koor gi kon ñun ñëpp ñu ànd ko waajal comme ni nga xam ne waajal nañ ko liggéey bii waaw ah, kon ci jëwriñ ci ndigal suñu jëwriñ sëñ Magumba dañu fexe ba bu koor gi ñëwee lépp lu ñu defoon ci màggal gi ñu def lu ko fawxa loolu rek mooy liggéey bi ndax ñëw nañ fii képp ku gis jumaay Tuubaa ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey ci màggal gi ah ci wàllu entretien barab bi ci wàllu nettoyage ak effectif bi nga xam ne moo koy def loolu laaj na ay moyens yu bare bare bare bari kon loolu taalibe bu ne war naa xam ki lay liggéey boobu ba dugal ci sa loxo kon ci gàttal xam naa duñu guddal ah dañuy sant sëñ Abdou mi nga xam ne moo fa ñëwoon soññ ak sëñ Jili soññ boobu ñu soññoon nag mel na ne ñenn ci taalib bi yëg nañ ko waaye am nañu ko yëgagut kon la ca des ci ñu ko nekk biir Côte d'Ivoire la dese incha allah bu nu fa delloo danañ def liggéey bi nga xam ne moo ñu fa war sillonné biir Côte d'Ivoire ba ñëpp yëg liggéey bi kon sëñ Abdou laat dañuy sant bu baax a baax baax ci taxawaay bi ci yëg gi ngeen am ba sentir waa Côte d'Ivoire doon xeen ci yoonu sëñ tubaab ba ñëwoon Grand Bassam ànd ak sëñ Aliou Thiam mii defa ay am solo ci biir Grand kon loolu dañ leen ci sant bu baax ndax euh, liggéey bi yàgg na lool xëy na sëñ Tuubaa mii yor ko ak sëñ Sadex nam nag waroon na mel melu ko woon ba tax ngeen ñëw fa soññ ci liggéey bi waaye daf beneen liggéey boo xam ne daf leen a waroon xëy na bu yàgg suñu borom doon ko door a dogal ren kon loolu it ñu leen ci sant bu baax sunu jëwriñ gi sëñ Moustapha Fall nga xam ne moo jiite mboolem xidmatul xaddim Côte d'Ivoire yàlla dogal léegi mu nekkal ñu fii ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi ndax soññe boobu man mii sama jëm yàgg na ma ko soññ lu jiitu ngeen fay ñëw soññ nañu ba taay te liggéey maa mu xaadimaatul xidma ndax saa bu masaa ñëw fii addee ji ni indaale moom da ko daan xeeb lool ba tax saa bu jógee diñ ci soññ diñ ci soññ bu yàlla dogal nag ren jiyee doo ko mel tàbb ci suñu nopp ñu jëf ci jëfin wi di ko xeeb lool kon bu déwénee ñu waajal ko bu baax a baax a baax wala sax fii ak 6 mois wala fii ak 5 mois ñu waajal ko bu baax a baax ba nga xam ne bu ëllëgatee ah danañ ci indi addiya joo xam ne si danañ ko mën a tudd ndax suñ ah, Sëriñ Tuubaa sax tudd naa addiya ji waaye man jëmuma ko tudd ndax gàtt gi mu gàtt ci sama bët waaye bu beneen yoon ñu jéem a góorgóorlu ba li ñuy indi ñu mën koo tudd kon ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp ñi àndal ci délégation bi sëriñ Daam Jaw mi it nekkoon membre matu xadim jiite woon commission culturelle bu xidmatul xadim moom yàlla dogal mu nekk fii soxla lañ ko loolu nag ci réew ma ndax ba mu fa jógee ba léegi commission bu dénkagun kenn di ko xaar pour kon sëñ Daam ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di jégalu ci kàddu yi kon jërë ngeen jëf. Eh, waaleykum salaam wa rahmatullah eh, noo ngi siyaare waa daayira Touba Côte d'Ivoire bi nga xam ne tey ñoo fi teew fii ci jumaay Touba. ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh Maodo Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ak wér euh, di siyaar sëriñ Afia Busaal imaam euh, di am mbégte lool ci teewaay bi nga xam ne daayira Côte d'Ivoire teew nañ ko fi euh, te ànd ak jëwriñ ji nga xam ne moo jiite xidmatul xadim bu Touba Côte muy sëñ Moustapha Fall mi nga xam ne moo ànd ak jëwriñ yi nga xam ne mooy jëwriñ Seexul Xadim yi taxawul liggéey bi nga xam ne sëñ yu Thiam mi nga xam ne mooy jëwriñ ji nga xam ne moo ànd ak mbooloo mi ji taxawu liggéey bi ak sëñ Daam euh, ak sëñ Baara Fall ma leen nga xam ne tamit moo doon mujjee yëkkati léegi ay kàddoom ak ñi nga xam ne ku leen xam-xam ne ñooñu ay ambassadeur Seexul Xadim lan ci jumaa ji muy sëñ Touba Lo ak sëñ dex Kan euh, di leen jaajëfal bu baax Euh, ginnaaw loolu tam ñoo ngi teew ak kilifa yi nga xam ne ñooy kilifay daayira bi muy sëriñ Abdul Ahad Bousso Maam Asta mi nga xam ne moo jiite relation extérieure muy bitim réew euh, ak social bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji euh, ak sëriñ Abdul Ahad Bousso mi nga xam ne mooy jëwriñ ji nga xam moo jiite commission culturelle bi nga xam ne mooy taxaw wàllu xam-xam bi fii ci jumaay Tuubaa ji Euh, ñun ñiitam ñu bokk lenn ci ndaw yi daayira bi nga xam ne dañ leen di yónnee ñu yëkkati seen kàddu ci bitim réew ci wàllu jaspora bi muy Assane Diop mi nga xam ne moo toog di wax. Euh, mu mel ne liñ fi waroon a wax lépp wax nañ ko xam naa liñ ci dolli rek mooy kàddu yi cant ak ngërëm yu bàyyi ko ci sëriñ bu Busal Imaam ci taxawaay bi nga xam ne euh, waa Côte d'Ivoire taxawu nañ ko daayira Muxaddamaatul Xidma sëriñ Afia mu ne mbégte lu ngeen am rek. daayira Muxaddamaatul Xidma am na ko ci yéen ndax bi nu jógee di xeñtu ji ak di saytu ji di xool jaar-jaari Seexuna Ahmadul Xadim yi bi ñu xamee ne Côte bokk na ci fi Sëñ Tuubaa jaaroon euh, bi nu ñëwee taxawaay bi nga xam ne waa Côte am nañ ko ci ñoom ba lépp loo xam ne da doon seen yitte ngeen ànd ci taxawu leen ba yitte yooyu yëpp mat euh, sëriñ Afia mu ne Euh, loolu yi nga xam ne defal ngeen ko daayira Muxaddamaatul Xidma yi seexul xaddim ji ngeen ko defal sëriñ Tuubaa tam ngeen liggéeyal ndax euh, dayre bi ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi euh, ñoom la Seex Saaliwu tànnoon tam ci nekkam jox leen liggéey bi ñu ko di ko saytu muy jumaa ji ak baax ya kon liñ ci waroon wax lépp wax ngeen ko liñ ciy dool rek mooy cant googu cant gi nag buñ ko tegee ci loxol ki nga xam ne moo jiite fédération Touba Côte mooy muy Elasma Gumba caam mi nga xam ne mooy jëwriñ ji euh, ak sëñ Moustapha Fall mi ak sëñ Alioune day àgg ci ñëpp euh, sëñ bi daal mu ne jërë ngeen jëfati dolliku nan yaakaar nag ñun nag mën nañ ci seede ndax fii la sëñ sa Fall toogoon ak sëñ Touba Lo ci ay carte la njëkkee ne dañoo fas yéene jaayante liggéeyal sëñ Touba moom tuubaloo mi yóbbu ko. Eh, at ma njëkk la la njëkk a ñëw xam nañ ko ak ma ca toppaat ba ci daaw ci màggal gi fii lañ toogoon yaakaar naa ne sëñ Moustapha Fall mii ba mu yëkkatee kàddu li mujj wax waxaat ko ca kër sëñ Afee ci daje bi ñuy def ba bis bi delsee mooy di fas nañ yéene Côte d'Ivoire day képp kuy liggéeyal sëñ Touba xanaa ëppale waaye yéene ji moom ak ak xol bi moom doo leen ci man danañ fas yéene daal jaayanteeg sañ Touba ba lu fi waaye di indi ñu indi ko fi loolu nag tey seede la ci ndax ku doon indi juróom benn fukk tey nga indi huit cent kon loolu ak yokk nga ci sëñ Touba jërë ngeen jëfati liñ ciy dolli rek mooy ñu yóbbaale ko mooy yitte yi nga xam ne daayira bi mu ngi koy soxla bi ci jiitu moom jàpp ngeen ci muy wàccaayu màggal gi ak koor gi yeneen yitte yi ci des jëm na ci ay matériel bu xoolee ren ci communication bi dégg ngeen ay message yu génn di wër ñuy wax ne daayira bi diggante armeel yi baqiya ak biir jumaa ji bari na lu manqué lool ba ñu wax ko muy lu aju ci wàllu ndox sëñ Laat Muxtaar sax leeral na ne Touba maanaam ci mbooloo mi ni mu toll amal fépp ndox yombul waaye fii nag daa bokk ci fi wur na manqué ndox ndax fii moom mooy fii nga xam ne ku bëgg a dugg julli da ngaa war a yeeslu ku wàcc ab liggéey dañ ko war a yeesal kon bu ñu bu ñu amee yitte yooyu itam bu ay jëwriñ yi sëñ Touba teewee di ay jàmbaar danañ leen ko wax ñu yóbbaale ko soxla nañ fi échelle électrique boo xam ne bu ñu bëggee monte ay pile ci jumaa ji maanaam am na ci cab boo xam ne 34 pile lay def am na ci boo xam ne 130 pile lay def te bu bii lakkee bii lakk doo man di indi ay di ko monter waat ngir licencé pile ba bu ñu amee échelle électrique boobu ñu jàppale pile bu lakk rek day ñëw yëkkati ko lu toll ci quinze 15000 nga monte waat mu mu jàll bu dee camion boobu ñuy wax muy oto citerne ndox. boo xam ne day nekk ci moomeelu jumaa ji loolu tam day timbali daayira bi nga xam ne bu ñu amee seeni otoy ndox eh, ñu koy gaare fii réservoir yi ñu am ci biir jumaa ji bu ndox yi fees wàññi ko ñu dem duy seeni oto ñëw rempli waat ko ci diggante armeel yeeg fii kon bu boobaa tam lu ndox manqué manqué du ñu yëg boobu jafe-jafe kon daal loolu lañ ci doon dolli la ca des ñu bàyyi ko kilifa yi nga xam ne ñooy wax ci kàddug Sëñ Aafiya ci kàddug daayira bi di leen sant rek di leen gërëm tey ñaan nag moom lu ngeen fi indi rek sëriñ Tuubaa gën koo ful ba ngeen am sax kàttanu lu jumaa ji soxla yéen rek ngeen man ko te ñaan ko ci barke Seexul Xadim. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di leen siyaara di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di jiital ci nuyoo bi Eh, kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu tamit jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk. di am mbégte bu baax a baax di leen dalal fii ci jumaay Touba ci turu Sëriñ bu Bousso imaam mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ñu wuutu ko fi ngir dalal leen ak kilifa yi nga xam ne ñoom laa toogal ci jataay bi muy Sëriñ Abdul bu so maam Asta. jiite commission sociale et relation extérieures ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Mokhtar mi nga xam ne e, ci secretariat bi ci ñi ko jiite la bokk bokk ci ñi coordonné liggéey bi ak sëriñ Jili Bousso mi nga xam ne mooy responsable intique bi fii muy audiovisuel bi fii ci jumaa ji sëriñ Assane Diop di jawrin Muxaddamatul Xidma ci jaspora bi e, di leen dalal yéen ñi nga xam ne yéen a jógee Côte d'Ivoire Eh, te sëriñ alxaaji ma ko jiite ko ngeen wutu ko fi eh, ci njiitul sëriñ Aliou Thiam mi nga xam ne moo doon wax léegi di jëwriñ xidmatul qadim ak sëriñ Bara Fall mi nga xam ne moo nekk Touba Adjamé di jëwriñ moom foofu sëriñ Moustapha Fall mi di jëwriñ xidmatul qadim ak sëriñ Dame Diaw waaye di nuyu tamit Eh, di leen beralum nuyoo muy sëriñ Touba Lo yaa Musa Koro ak sa dex mi nga xam ne moo moom it ñoom ci ci ci jëwrini Muxaddamatul ma lañ bokk ndax liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Muxaddamatul Xidma gannaaw bu ñu nuyoo Serigne Mafari Ndiaye te sant ko ndax contact yi xam ne moo liggéey moo dugal liggéey bi foofu ci moom la jaar ñoom ñaar ñi naka jekk ñoo daal coordonné liggéey bi foofu waaye suñ koy def di laaj taalibe yi ak coordonné liggéey bi ci ndigalul jëwrin yi lañ koy defee kon cant kooku dañ koy jaarale ci ñoom waaye day dem ba ci alxaaji ko Jaam mi nga xam ne mooy jiite liggéey bépp nekkal fa jiite taalibe Cheikhul Xadim yi fa nekk yëpp ak dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci capital yi Côte d'Ivoire yi ak yi nekk ci àll bi ak fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant bu baax ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Serigne Afia ci addi yi am solo ji nga xam ne indi ngeen ko ci liggéey bi te yàgg koo andi terrain ji mu mu yokk lool ni ngeen ko waxee Eh, ndax gis nañ ne daayira bi yàgg na fa nekk di liggéey addiya yi di fa jóge waaye bi nga xamee ne yàlla dogal na am liggéey boo xam ne yabal nañ ñu dem fa ngir doon fa def liggéey bi ñu doon def eh, ci jaar-jaari sëriñ bi te jóge woon ci yeneen réew yi ci kaw loolu tamit mënuñ ñee ñàkk a occasionné wu ci antenne mi ngir beral ci ak cant eh, sëriñ Mourtada mu sëñ Abdul Ahad ndax bi ñuy ñëw foofu moom lañ ci moom lañ jaaroon mu boole ñu ak alxaaji Makumba Caam ngir ñu teere ñu dalal ñu biñ ñëwee mu boole ñu ak sëriñ Aliou Caam mi ak sëñ Sadeex ñoom ak ñoom sëñ Baara ñoom mi wax dëgg yàlla ñu dalal ñu dal bu rafet toppatoo ñu bu baax ci wàllu transport li ko tàmbalee ci aéroport bi bi ñuy dugg ci réew ma ba ñuy génnaat fu ñuy mën a jaar ci Côte d'Ivoire ak barab yi ñu soxla woon yépp bàyyi seen yitte yëpp ànd ak ñun accompagner ñu ba liggéey bi ñu doon def yëpp ñu defee ko nu kawe njort loolu tamit ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm ndax Serigne Touba rek moo tax ngeen koy def ndax Serigne Touba moo ñu fa indi woon ngeen xam ne liggéeyub Serigne Touba la ngeen jëlal ko seen bopp bañ def liggéey bi niñ ko bëggee woon yemuñ ca ñu noppee ñu ànd ak ñun dem ci daayira yi barab yi nga xam ne barab yi Serigne Touba la yaakaar naa bi di woy jàll na muy eh, kër Sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoom def nañ fa liggéey bu am solo boo xam ne ñun tamit am na sens ci am nañ am na solo ci ñuy taalibe yi xam loolu ak noosu ba fa nekk muy kër Sëñ Tuubaa ya fa nekk nga xam ne am na ay jàngukaay am ay juma am ay daara ba noppi it li ñu gën a marqué ci suñu yoon woowu mooy eh, kër Sëñ tubaay gi nekk Yukkubu Yuppugon nga xam ne fekk nañ fa muy kër Sëñ Tuubaa goo xam ne am na jumaa yi ajjuma ju fa nekk yoo xam ne ivoirien boo xam ne taalibe la moo fay jiite te ña fay jullee ñu ci ëpp ay ivoirien lañ te loolu mooy liggéey Serigne Touba dëgg dëgg dëgg dëgg bi nga xam ne moo ko taxoon a jóg ndax imaam imaam bi di imaam Daouda euh, ñëwoon na sax ci magal gi euh, bokk na ci tamit li ñu gën a yéem mooy biñ demee ci sëñ boobu nga xam ne moo joxe suuf soosu nekk bor yaa mosakoro sëñ sëñ Seex Gueye moom it muy université boo xam ne Euh, jàngukaay bu mag bu ñu fa war a def boo xam ne dafay tafu ci ci université bi nga xam ne loolu dana am sens dana am solo ci man di former ay duxaat ci sous-région boobu yépp di leen jàngal lan mooy njàngaleem lislaam ngir ñuy mën a dem ci dëkk yooyu loolu tamit yaakaar naa ne liggéey bu am solo la niki noonu dem nañ ajame suñ Bara Fall mi bokk ci jëwrin yooyu foofu it liggéey bu am solo am ak kër sëñ Tuubaa gu mag nga xam ne mbooloo mu bëree fay daje dem nañ yaamu sakoro dem nañ fële euh, Grand mbasam waaw moom it liggéey bu am solo am fa boo xam ne euh, fekk nañ fa Sëñ Tuubaa gu noppi ak juma loolu tamit dafa doon loo xam ne mënutoon a ñàkk it ñu ñu gis ko ak liggéey bu fa am ci wàllu xam-xam muy école boo xam ne ñoom ñi ñoo ko yor muy yor lu ma daanaka 400 élèves yoo xam ne ay waa réew ma ñoo fay ñoo fay jànge di leen jàngal njàngum diine ak njàngum lislaam kon taalibe Sëñ Tuubaa nekk ci bitti Eh, jihaad wuti koom moo leen yóbbu waaye ña ngi fay def jihaad ju am solo loolu eh, occasion la kon su fekkee ne bii mooy yoon bi ngeen njëkk ñëw ñu ñu ñu seedeel loolu jëwrin jëwri ni Muxaddamatul Xidma yi sant leen ci loolu kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ci biir loolu nag biñ noppee ci lañ gënoon a waxtaan ak jëwrin yi ngir gën leen a leeral liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom sëñ tubaa ak sëñ Sadeex gën leen koo leeral waaye ñoom it ñu déglu ko def ko muy seen mbir ndax xam nga jumaa ji moom da dut lenn kenn lépp ñëpp la lu nay ki nengu ci kenn gënu cee yañ yey kenn am na ci loo xam ne su ci taxawaay amul rek maanaam dañoo amul information bi ci war waaye biñ ñu dégloo ñu leeral leen liggéey bi ni mu demee ñoom jëwriñ yi ñëpp dañ ko jël def ko seen yëfi bopp di ko soññal seen bopp loolu jàpp naa ne moo indi résultat bi kon loolu am nañ ci yaakaar ci li ci kanam jàpp nañ ne eh, kanam la jëm te jàpp naa ne yéen ñi yoroon liggéey bi noonu ngeen ko bëggee woon te te te te te noonu amee na nu nu kawe njort noonu ndax ñoom bu fekkee yoral nañ ko seen bopp rek di ko soññeel seen bopp daayira bu nekk dëkk boo mën a nekk ñooy laa ah, màggal jub na entretien général bi ak waajtaayu màggal bi mu ngi ci koor jub na dana am solo ci buñ dajalee loolu. liggéeyu daayira Moukhaddamatoul ma nag dafa ëmb bànqaas yu bari wax nga ko léegi entretien bi rek doy na sëkk te lu sax la liggéeyu armeel yi bàq yeeg armeel yeeg ramadaan ak yu demee noonu loolu lépp lu sax loo xam ne dafay laaj ay jumtuwaay yu bëri tey it e, Sëñ moom da ko wax léegi du jëggaani fenn lenn ci ci kenn ci ku dul ay taalibeem kon lépp lu jag rek taalibe yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko jagal kon moo tax e, ñu ciy tàllal loxo taalibe yëpp rawatina nag dëkk bu mel ne Côte d'Ivoire nga xam ne mën nañu wax ne résultat bi njëkk am ci yoonu murit ci wàllu génn ak daayira buñ taxawal bu am doole ci bitim réew yaakaar naa kenn jiituwu ko ci kon ñoom jàpp naa ne ñàkkul am na ay addee yu fa jógee yu ñëw ci tabax jumaay Tuubaa loolu moom parce que dat yi ñuy wax ne fa la fa taalibe yi dem kon ñoom jàpp naa ne luy taxawu jumaa ji ak lu koy saytu jàpp naa ne exemple lañ ci war a doon te loolu tamit lii wane na ko kon yàlla yàlla gën a taxawu taxawu taalibe Sëñ Tuubaa ci fànn yëpp ci may leen kàttan goo xam ne wërsëg bu yaatu woo xam ne liñ bëgg lépp danañ ko mën a def danañ ko mën a def ci saayir ak ci baatin su ko defee sëñ Assane da ko junj léegi dañuy profité tamit ci ci antenne bi ngir fàttali yi nga xam ne communication yi ñu def ci màggal gi yëpp ñu ngi koy fàttali ci yoo xam ne yu munta ñàkk la muy jafe-jafe yoo xam ne am na am na dafa gën a feeñ ci màggal gi waaye lu sax la muy xam nga fii ci jumaa ji maanaa semaine bépp amul benn bis buñ dul seetal jumaa ji mu laaj ndox mu bari ci ñuy netwaaye karo yi te fii réseau bi amul doole ci robinet di war a xel yi kon laaj na benn citerne ndox boo xam ne moo fiy nekk permanent di duy bariwul yi nga xam ne ñoo fiy nekk di setal penc mi kon loolu dafa doon yitte joo xam ne bépp taalibe wala ku bëgg lu baax kuy saytaan loolu lu yitteel la muy fii beneen bi soxla nañ benn oto mbalit xam nga waa ICC wala ñu yor mbale mi màggal gi lañuy ñuy gën a indi seeni jumtuwaay waaye su màggal jàllee oto yi ñu yor xëy na mën naa bañ a satisfaire dëkk bépp kon dafa jaadu jumaa ji am oto boppam boo xam ne lu fiy mbalit suñ ko dajalee ci poubelle yi ñu jël ko yóbbu ko sotti ji ko kon loolu tamit dafay yitte joo xam ne faaw dañ koy fàttali neen oto ndox boo xam ne soxla nañ ko boo xam ne permanent lay nekk bàq ya ndax train bu ñu demee ba bu ñuy waajal am néew ku fi bàyyi ko dañuy jënd ndox ngir waajal ko loolu kon dama jàpp ne taalibe Sëriñ Tuubaa dañ koy yëgut te foofa ñëpp fa ñëpp ko war a taxaw kon damay jàpp ne citerne boo xam ne dafay nekk bàqiya toujours muy am ndox nekk fa saa suñ soxlaa ndox mu mën a duy mbànd ya ñuy waajal ñi fi bàyyi loolu tamit day farata loolu nag ñun sëñ bi dañu fee teg ngir ñu lii amul lenn lu ñu soxla di dem ci moom di ko di ko laaj maanaam ñun ñooy génne ci suñ poos ak dayre yi nga xam ne ñoo nekk biir réew mi ak ci bitim réew moo tax yi ñu am yépp ci yu noonu lañ koy lancé kon loolu mooy yitte yi nga xam ne moom ci ni mu gën a gaawee képp koo xam ne yàlla man loo na la ko bàq bu tooyee ngi nii boo ci jiyee moom da nga am gàncax gu naat kon ñu ngi ciy tàllal loxo sunu bopp di ci tàllal loxo ñëpp di leen sant di leen gërëm di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu defal ñu tawfeex te liggéey ñu defal Serigne Touba yëpp ñu bañ cee gis suñu bopp maanaam lépp doon tawfeexi Serigne Touba te seytaane bañ cee amu yoon ndax Serigne bi kat nabaxtukum mahan xalaakaat din badaali qabla an aramu ridan mu abada coono yim daj ngir ñun amul lenn luñ ko mën a def ba fay ko dañ koy mën a delloo njukkal rek ci di xool li bëgg-bëggam ñu di ci jéem a jublu di ci jéem a teg suñ tànk kon yàlla ñu yàlla xiir ci ñuy jaar ci yoon bi mu bëgg yàlla ñu yàlla xiir ci mu ñuy wommat ci yoon bi mu bëgg kon suñ Baara ak sëñ Aliou ñu leen di nuyu bu baax di leen yóbbante nuyoo ci bokki bi yépp góor ñi ak jigéen ñi di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfeex ak taysiir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu